nga xam ni moom moo am euh, Kaolack Medina Baye muy mm. euh, borom ñaari tulli ñu tulli def ko anam bu ñaaw violence boobu nan nga ko nga ko gisee démb ci guddi dama doon jooy dañu dem di filmer kër waa ji duma ko woowee borom ñaari tur parce que xamaluma ko dara te looy wax na leer te bëgguma yàlla boole ma ci lii ñu def kii xamaluma ko dara xamuma ko. comme ni ko déggee rek ma ko déggee. Mm-hmm. Euh, God forbid du waa ji cheikh moom rekk ci biir néegu yàlla ci biir kër yàlla ci biir armeer ñëpp na teg est-ce que xam nañ ñooñu lu ñuy dund ñene foofu. est que mën naa jël sama loxo bi ma teg ko ci kaamil ma ni Faatumata binta yaa Rasulullaay doomu yonent bi mi ngi àjjana lu ma ci xam dama am yaakaar rek est-ce que ñi tëdd foofu ñëpp ñi ngi àjjana man dama am yaakaar rekk xaw ma man pour man ku dee <laughs> yàlla jéggalam rek la yor mm-hmm. def nañ lu salte lu ñu xeebee senegal mm-hmm. lu jullit yépp ñaawlu teg nañ leen loxo foo dem ci àddina am na boroom ñaari tur mënuñu ci rien lii lépp maam Matar Gueye ak euh, soppi jikko yi nee nañu ma ne ko soppi leen seen bos ba pare sàmm jikko yi ñoo indi lii Sénégal yàlla dina leen dóor barki salaatul fatiha seeni yaay ñooñu ñuy wax borom ñaari tur yi seen yaay fii lan dëkk seeni papa fii lan dëkk benn jigéen yaay ji bakkanam sax dama jooy ba ñuy nettali yëf yi ndax damay waajur dama ëmb juróom-ñeenti weer xamoo loo jur est-ce que boo xamoon ni tey jii boo tëddeeg sa borom kër borom ñaari tur ngay jur wala caga wala lesbienne est-ce que yow jigéen bi diñ ko nangu doo ko bëgg mais yàlla moo ñu ko jox ñun jigéen ñi moo tax bëgguma jigéen bu leen di xas ndax da jur doom sa doom boobu day jur sa sa day day am mi doom bu ko xas suñu borom bi moo ñu ko jox ñun jigéen ñi seen papa yi dañ naan sa doom doom jigéen jur la ñu suul ko lu tax mbëkk yi nekkee ñu ne borom ñaari tur yi la lu tax engagé wuñ ko woon toj koñ ba génnee ko koñ ba mais ñu bàyyi ba ruuba dem ñu dugg ci néegu yàlla ak ku ko def yal na la ak sunu borom bi dal Sénégal ku ko def yal ñu nekkoon ci biir foofu yal na leen maladie bu bon dugg dañu dem ba ci néegu sunu borom bi fi néew yëpp tëdd keroog tiital nañu néew yëpp ñu taal fa dégg naa ñu taal mu fay ñu taal yàlla fay ñu taalaat yàlla fay ñu daw wuti ay ponoki ki essence ni yàlla yow dañ dañuy dugg sa kër ñu Sénégal ñun dara ñorotuñu loolu ñu ko def suñu borom bi ak yërmandeem bi ma dégg kii mën na yàlla mën na ko yóbbu àjjana ñoom ñu nekk ci mbugal goo xam ni nañu wax Kaolack la fa nekk xanaa ñoom gisuñu ko xale yi yéen ngi fàttale ko xale ca gaaraasu Kaolack ba ko doon tëddee xale yi taalibe ba taalibe yaa ngi fees teel Kaolack wax ci loolu ñu leen di tëddee di leen teg di leen def góor jigéen xanaa ñu yónni woon xale yi foofu gisuñu loolu ma nga ci sama xel di ca gaaraasu Kaolack ba kuy tëddee xale yi taalibe may suñu jàmm def nañ ñu salte mhm, def nañ ñu ñaaw ba yaayam génn ci euh, àddina dégg naa ay bambara lañu xale naa yaay ji léegi naa am na ku ma wax ni ma man xam na yaay ji yaay ji bambara la gisoo nañ xeesee mhm. euh, def nañ loo xam ne naqari gis nga Sénégal maam Matar Gueye ak euh, soppi jikko yi xaw ma sàmmi seen jikko xaw ma ñoom lu mhm. wax sama gént gi tey sunu nee na li ñu naqari moom daf ko neex barki salaatul fatiha nee na ñun li ñu li ñu neex moom moo ko métti daraay Sénégal intéressé ko ndax lu ñaaw li muy gis ci réew mii maa ko gént man daraay neel sénégalais lu ma gis nii rek neel sénégalais yi li leen naqare daf may neex li leen neex moo ma métti ci coow liy am lu lan moo tax lan moo tax yow ngay dugg sama vie man mais yow addina makka sax am na borom ñaari tur yi lesbienne ak caga ñaata ngay dégg ñu ne sénégalais yi ngi dem makka am na ñoo xam ne dañuy dem ba makka di di defanteeg naar yi naar yi boo demee makka nii dañ lay wax da ngay gis ñu ne dañ lay wax ñàkk fayda fan la góor jigéen ak caga ak lesbienne amut mais danga nga gis ñu leen di taal jànguma nag kaamil ba wàcc mais ñooy wax may dégg. ku dee sa bàmmeel bal bakkaar du wàlle kan moo wax ñu newoon ci mbooloo moomu yépp di taal doomu jàmbur jooju am na ku ci def yàlla loo xam ne bu ko neexoon mu dëpp asamaan seeg suuf si ñoom ñoom maam Matar Gueye nag benn état barke salaatul fatiha ak ajjuma ji bu jox benn boroom ñaari tur wala lesbienne euh, euh, passeport diplomate gis nga lii nii ñuy def moo leen di may ato ñi nga amerique fees fa dellu yor nationalité americain bu ñu yegsee deux semaines dañ leen di jox working permis ñu dem ñu yóbbu leen ñu jàngi deux semaines yi bu jotee ñu jox leen green euh, un mois bi ñu jox leen green card lu te sénégalais yi deux ans fekk ñu jàng ba xam système bi ñu jox leen passeport ñoom ñëpp ñu ngeeg passeport yu te sénégalais yi boo demee Hollande ñu nga passeport Hollande yi di dawal oto yu baax yi ñoom li leen Sénégal defal man mii maa ko xam ndax dama leen di gis lépp mm-hmm. ñu dugg ñëpp ci yoonu Amérique bi góor jigéen lañu déclaré parce que moom lañ lay may kayit Amérique sam oh yeah maa dëkk Amérique xam système bi di dugg ci système bi xam ñu baax ñi gouverneur yi maire yi <laughs> ñoo ñooy samay nit man damay wax ñu ñu ni dama dégg waa bokk ak ñoom dama gudd lonk yow li ma wax dama ko xam Las Vegas laa dëkk dinañ seetaan lii du gaa waaye jëmm jee ndaw mm-hmm. tata tey internet bi euh, ba tey dañuy desandi rek ci yàqante waxante lu ñaaw mm-hmm. ñu gis Aby Ndour euh, euh, di sœur ci ki nga xam ne moom mooy Bouba Ndour nekkoon borom kër bu Viviane mm-hmm. ñu gis ay wax yu ñaaw yoo xamante ni day jóge ci abindu ak doomam di dem ci Viviane waxante lu ñaaw defante lu ñaaw li tey ban jàngat nga ci am. Euh, jàngat bi ma ci am mooy li ma wax rekk ci commencement bi àddina bu yàqu Sénégal ñëw yàqu-yàqu boo xam ni xawma lii lan la mais Youssou Ndour yaakaar naa ni réglé na ko mais lii dem dem na ba pare mm. gis nga réew mu jàmm yendu ku xam lu mu waxu la fa yi toog dama xam Aby Ndour laa wax mm-hmm. dama xam Viviane laa wax mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp dama leen a xam mm-hmm. kenn ku ci ne xam naa jikko ah, euh, Viviane du mësa génn di wax Aby Ndour dara lu ñaaw di ko génnee di ko ko wax waaye nee na dañ koy envoyé ay message ci suuf du oh, Viviane ay fansu Viviane ñi ko bëgg Sénégal fii ku fi wax loo fi war ta wax nii lañ lay def mm-hmm. Aby mm-hmm. moom moo war a xam ni Zeyna ak Pape Philippe mm-hmm. ay doomam lan mu bañ leen a wutal woy wu bon Viviane mënoon naa wax sax Aby ñaaw Aby ne pat ndax doomam yooyu moom buubaa bokk ndey ak bàyyi bokkuñu ndey rek bokkuñu baay rek mm-hmm. mais lii nag dafay bëgg a yàgg te bëgg nu soof 2002 Viviane ba muy wusin si Pape Philippe mm-hmm. kër abi ñëw ah, ma nekk ak ñoom xam leen nag li may wax dama ko xam ne mm-hmm. waxante lu ñaaw waru fi am tey Aby wax na ak doomam loo xamante ni tey na xelu sénégalais yu baree bari ba ñu bëy sax ñu ngi jugé ku nekk ak façon bi nga xamante ni noonu nga déggee parole yi dem ba naan Viviane peut-être amaana euh, dafa am lu xew ci euh, euh, diggante moom ak Bouba nduur loolu yàq seen sëy ak yeneen ak yeneen loolu tamit ban. man maa koy leeral. Mhm. problème bi ba mu amee fii la ma fekk Viviane di ko nettali man mii maa koy nettali. Euh, Viviane dafa am ak buuba problème ci affaire kër. kon du lu nit ñi wax. ba mu amee problème ñu werante jigéen di jëkkër ak jabar sama yaay laay jëndal ak yaa war a jënd ak euh, mu meer fekk Youssou Ndour mi génnee cassette. Mm-hmm. Viviane génnee. Mm-hmm. Viviane war a def buuba war a def promotion bi def promotion bi. Mm-hmm. ci biir xuloo bi mu ne ko maa ngi dem Amérique damay def promotion kasetu Youssou Ndour deux semaines laay def mm-hmm. mu départ rek man ma ñëw mm-hmm. woo Viviane mu ne ma jeeg bi ñëwal man dama la soxla ñu ñëw toog mm-hmm. maa ngi koy doog a nettali sama mu ne ma buuba dañu xuloo mais lii moo am li ma wax léegi moo am mais mi ngi nii dem te gis naa ni bu demee du ñëwee du gaaw a ñëw pour def sama promotion sedde bi ma génnee te bu ñëwul dinañu am problème dinaa ko ñaan baat ndax du bàyyi sama kaset fii di dem ma ne ko déedéet ca la dem moom buuba am fa jabar mooy ki mu takkoon faatu mhm. di ngoroo kooku Viviane dégg ko mais du Viviane la buuba jàpp ci loxo mu koy mooy ak i ami far loolu bu amoon sax warul génn ci abi ñun am nañ yu ñu xam te noppi dafa am yu ñaaw yoo xam ni nee naa la fu jàmm yendu ko xam lu ma waxu la fa ne ñoom ñaar ñëpp dama leen a xam bu ma waxee dëkk bi yëngu mais affaire famille la Youssou Ndour na jóg wax ci lii mu jeex lii ñu def ci YouTube bi yëpp mën nañu fay ñoom am nañu xaalis nañ ko dindi rafetul Youssou Ndour fameem il faut cat am ci te cat bi abi la ndax dafa man duma dégg ndey Seyni bu di wax lu ñaaw lii duma ko dégg Ngone duma ko dégg Marie duma ko dégg Fatou Kiné te dégguma ko ci góor ñi. mais lan moo waral luy mel ndaxte dafa jaaxal ñu bari dafa jékki-jékki rek affaire yi xamuñu lan la ñenn ñi naan. ñoom ñaar yàgg ñoom ñaar yàgg nañu am problème yii. Ah, Sénégal xam ñëpp ko xam. Aby Ndour ak Viviane xaw ma lii lan la mais nag dafa am yoo xam ne man duma ko génnee di ko wax sama jabaru am na ex jabaru càmm ndax sama doom yi Zeyna dafa toll ci jaayu. góor war na ko takk lii ñu koy wax nii bini mi ngi sëy mm-hmm. mais Zeyna dafa toll ci ci am jëkkër Pape Philippe war naan jabar mm-hmm. mais bu nu wax loo xam ne ëllëg seeni jëkkër wala seeni mbokk jëkkër dinañ leen ko xoolee it's too ugly tey boo déggee mu ne moom kenn mënu ko waxal dara ci Sénégal mu abindoo ak doomam ndax waaw moom dafa xalaat loolu rek nos Mouhamed moom dafa xalaat loolu rek nee naa la dama leen xam ñoom ñaar ñëpp abi déggee may dina <laughs> ci biir xolam dëgg la Viviane su déggee may wax dina ne dëgg la na rafet waxante lu ñaaw li fii koo fi yor solayam mi ngeeg sa bub ba ma jambal jaan bind ak Seex Yirim Seck dangay noppi rek mais moom Aby Ndour na jaay doomam yooyu Viviane jaayul ay doomam de moom mooy jaay Pape Philippe ak Zeyna moo bokk ak ñoom Viviane jur la ci am mm. bu mu leen yàq doomam am na jëkkër dem naa ba dégg mu naan ko Zeyna leen nga ménopause doo am jëkkër Zeyna mi judd quatre vingt quinze comme quatre vingt seize nu muy mën a ménopause ci xale bu ndaw dafa am wax yu ñaaw dafa am yoo xam ne man duma ko wax keroog ba ba ma samay doomu mag di ma saaga non dama rus bugguma bugguma sa wax parce que am na yoo xam ne famille doo ca doo ca wax loo xamante ne ni day doom way ñoom àddina bépp Sénégal yëpp leen fii am na yoo xam ne seen noon yi ñii la ñu bëgg denc ko dañuy jékki-jékki Zeyna am fii jëkkër ñu ne ko pal nu ko sa yaay lii lañ doon wax ak lii lañ doon wax sa yaay say bàjjan lool abi mënu ko woon a science bu Samsu Viviane ñuy saaga abi wala ku mu a doon di saaga abi abi war naa mag mag goo xam ne dina wooyu sunduur ne ko man day xam naa ne Viviane def li man xam naa ne Viviane bind benn moo man xam naa ko woo naa ko ne ko bul ngaa nga mu ne ma man man kay nañ ma wax lu leen neex rek yàgg naa dégg lu ñaaw kon boog abi mooy calm down binu xale la euh, yaayam bu déggee tamit ñuy wax yaayam lu négatif te muy jigéen di si dugg bi ci Zeyna duggee du ñaaw moo tax warul ne dama naan la bul ci dugg yow mii sama doom noppil man ma xeex ko sama bopp màggetuma du ma gumba samay bët sil ma mën naa jàkkaar ñoom noppil ma xeex ko man mm-hmm. mais lii ñuy def nii rafetul nee naa la réew mu jàmm yendu ku xam lu mu waxula la fa ne ñoom ñaar ñëpp laa xam man bu ma waxoon dëkk bi yëngu. Mm-hmm. duñu doy na borom xel kontaan nañu. ñu bàyyi nga tàggoo. <laughs> xanaa di am na solo di ñaanal sénégalais yëpp jàmm uh-huh. di ñaanal notre candidat président Amadou Ba laa koy wax uh-huh. ndax fu mu nekk nii dama gisul kenn ku ma mën a présenter man bitim réew actuellement nii ku dul Amadou Ba ñii gàtt nañ ñii ñàkk nañ fayda ñii mel na ni ay ay ay borom ñaari tur yi ngay wax am na ku ko ci nuru nag <laughs> koo xam ne ba mu génn ba sénégalais yi jàpp ko euh, di ñaawlu it li xew Kaolack di wax ni umma lislaam bépp ak chrétien yëpp rafetlu wuñ ko kon ñoom amuñu ndam mooy la ma dal rek Amérique ñëw fekk jigéen fekk waa Benno Bokk Yaakaar yooyu lekk ba suur ëpp ma mm-hmm. nga ñëw wër ma quarante góor cinquante góor di ma tuur ndox loolu doo ci am ndam te kuréel ma ki day dóore dama leen dóor ba ñu bëgg a dee loolu moo leen dal fekk néew bu tëdd mënutul dara nga di ko dóor di ko di ko defee amuñu ndam Sénégal dafa dem down te lii monde entier dinañ wax ak Macky Sall ah. mm-hmm. human right dinañ wax ak Macky Sall mm-hmm. dinañu kaas lii nit doo ko lakk te neexu ko moom nit ñi dee ñu leen di lakk ay indo ñoom seen aadala la mm-hmm. bu ñuy lakk kenn du ko gis fuur la yaay bëgg ñu lakk la def la ash nga jox sa doom yi ñu téye la fu mu dem yóbbu la mais nga jël doomu aadama man li ma gën a naqari mooy ci kër ñoom ne ay kilifa tëdd foofu ñun lakk biir armeer yi noonu taal ba muy jël jël ci biir armeer yi néew yi tiit God forbid yal na leen ak néew yooyu tëdd foofu dal ñoom ñëpp li li li Akhenaton wax ñoom ñoom ñëw na xaru dem ci géej gi nag kenn du jërëjëf kontaan naa ah, kay Cheikh Fidèles internautes yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo Coura Macky euh, la ñu dalaloon ni la mënoon demee ndaxte actualité yi bari na waroon nañu waxtaanee leneen ak leneen sax na waa dañ ko fi euh, yemale bu beneen yoon incha allah di leen jox di daje très bientôt ak keneen jaajëf